donc kambi mo nek ni fiep ci kambi la bok fiep ci kambi la bok parce que kambi dafa ngeen trop ah en tout cas day na waa daal xale moom la rek parce que kenn mënu ci dara waaw xale moom yàlla koy sàmm rek liñ wax chaque fois rek xalé mom yalla ko sam mais dal yalla na ci yàlla saafara daal waa saafara nañu ci biir ah ñi ci biir ndox bi di jeex sel seetloo waje ci biir ndox bi gis nga parce que nena aussi la solo yére moo duñ neex ak bu doon sol la yére dina neexal ci gis waaw mais n'empêche ñoom ñu ngi nooru jéem a xool daal yàlla baax yàlla si yàlla